ñu ànd ak fédération bi nga xam ni itam mooy diwaanul murid yi nga xam ni euh, taalibe yëpp ñoo dë tëkku ci biir Daaru Xudoos xam nga sëñ Ousmane ñu doon ànd liggéey bu ñëw jiite ko waaye mu am empêchement moo tax ma ànd ak ñoom ñëw teew fii ni ma fa daan teewoo e, nuyoo boobu nag nuyoo bu sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Mountakha la ndax lépp lu ñuy def ci bis bi moom lañ koy defal moo koy jiite ba lépp mat kon ñu am tawféex bi ñëwee tey jàpp bis bi fekk nañ ci biir dëkk bi loolu lépp di ndimbal bés bi nag dañu ko tuddee màggalu Daaru Xuddus waaye màggalu lislaam gépp umma islaamiya la màggalu yoonu murit la màggalu njabootu Sëñ Tuubaa gépp la dafa fekk nag nitu Daaru Xuddus lañ koy defe waaye màggalu yoonu murit gépp la muy bis bi nga xam ni ci la ko tedd gi wàcce liggéey fii ci njaareem te mu waxoon seexul seex naa seex euh, Mouhamadou Moustapha ni ko seen lépp mi ngi aju ci bis bu ma génnee àddina ngeen yóbbu ma Tuubaa denc ma ko te xat dammul maanaam coow amul werante amu ci xëccoo amu ci xeex amu ci su boobaa li ngeen bëgg lépp di ngeen ko am waaye su ngeen xoolee ba loolee amul foofu la seen lépp yam Cheikh Moustapha ci ak matam ak xelam mu ko yàlla may mu lengante ba li sëriñ bi bëggoon mu indi ko mu indi ko Touba te sëriñ bi waxoon na ni bis bi ko gënal ci bis yi mooy bis bii nga xam ni ci la génn àddina di daje ak boroomam ndax moo ñaan bind ko ci xasaayid yi kon mën nañu wax ni bis bi gënal sëriñ bi bis bii mooy bis bi nga xam ni ci la fekk daje ji ak boroomam ngir jot ci ak payam muy bis bu rëy bis bu tiisoon boo xam ne moo joxoon ndigal Cheikh Moustapha mu koy màggal mooy màggal gi nga xam ni moo jëkk am ci yoonu murit ginnaaw mawluut gàmm gi nga xam ni ku tedd ki doon def fii ci njaareem depuis de kon bis la boo xam ni mooy mag ci bisi yoonu murit ndax day mu waxoon ni suñu borom malaaka yi mu yabaloon ñu jël ci sëriñ bi su màggal gi dellusee dañuy ànd ak dañuy ñëwaat ci dëkk bi di di di di sargal ak di saafonte yi nga xam ne ñoo fi fanaan moo taxat mu sàkk woon ci nii fépp fu ab taalibe nekk wala jullit su màggal gi ak seen nga ñëw Touba fanaan fi màggal ko ñu ànd nu dëpp ak sunna loolu moo waral Cheikh Moustapha daan ko def ba 1945 mu bàyyi ko Serigne Cheikh Mbaye Gaynde Fatma wéyal màggal gi di ko woote ci jamono ju jafe waaye mu amuk dogu euh, ca ne ko waajuram doon defe ak nam ko santaane woon ba 1978 sëriñ Mbàkke Madina wéyal ko ba bàyyi ko fi sëñ Mouhamadan Xarilu waajuru sëriñ Baara mi wéyal ko ba bàyyi ko fi sëriñ Xaadim Mbàkke wéyal ko ba tey bàyyi Ahmadou Mokhtar nekk ci sëñ àll yu itam sëñ àll yu sëñ àll yu wéyal ko ba bàyyi ko fi sëñ xadim eh, wuutu ko moom it ba bàyyi ko fi bàyyi Ahmadou Maxtaar ne ci kanam njaboot gi di ko wéyal ànd ko ñëpp nag ànd ko njaboot Cheikhul Xadim gi waaye ko di ko def ci kilifteef ak njiit ak teewaayu sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax moom day fanaan ci kër gu mag gi di ko màggal ba set bis boobu nag monsieur le gouverneur gis nañu nii amul benn bis bu ko gën a màgg bu ko gën a yàgg bu gën a sëriñ ci bis yooyu leen kon su yàlla dogalee ngeen nekk fii yàlla dénk leen li mu leen dénk muy lu jëm ci wàllu état li ngeen ci war a taxawee yépp ngeen wax ñu ne di ngeen ko taxawee mënuñu dul sant leen ci ak gërëm leen ci ak it ànd ko ak yéen nag am na nag eh, benn poñ rek boo xam ni dégguma ko fi muy poñ bi nga xam ni mbirum séeréer yi la muy sécurité alimentaire waaye xam naa di ngeen koy lijjanti ci suuf boobu rek laa fi déggul kon ñu ngi leen gërëm gërëm chef de service yëpp gërëm la commune de Touba Mor ñu ngi lay gërëm bu baax ci taxawaay bi xam nañu li ngeen wax yëpp même suñ defu woon defu woon réunion bi ak ndaje bi di ngeen ko def ndax xam nañ la xam nañ sëñ Abdou Lahad Ka amu leen lenn lu sëriñ bi ak lu Tuubaa kon ñu leen ci sant bu baax may wax rek euh, sëñ euh, Ibra Cheikh Ndiaye yéen comité d'organisation bi ñu collaborer ak ndaw yi nga xam ni lu mel ni service commerce ak waa service d'hygiène xam su yu mel nii jubsee képp ko amul produit boo xam ne bu baaxul la da ngay jéem profité dugal ko ci biir marché bi ngir jaay ko donc ñoom nag war nañu ñëw kon ànd ak ànd ak ñoon ñu jàppale leen ci loolu ba ñu liggéey fi liggéey boo xam ni kenn du fi lekk loo ko am lu lu lay lor la waa euh, ñi xam ne saytu wàllu wàllu ndawal gi itam soxna jaara moom di sant ko gërëm ko ndax dañ ko fàttee def rek ci euh, ci ci ci nu tuddati bi PV bi waaye ñoom liggéey bu am solo lañ fi liggéey kon ñu sant leen bu baax yéen itam ànd ko yéen bu soobee yàlla wax rek ni màggal gi fu ne rek la waaye di jóge di fi di fi ñëw dëgg la sécurité bi muy waa gendarmerie muy waa police muy waa eaux et forêts muy waa douane eh, ñiy ñëw dañu war a xam ni foo gis takk der sa jëmm moo ko fa bàyyi sa jëmm moo tax mu taxaw foofu te taxawaay yu metti lay doon yenn fanaan ci naaj wi te la muy daj lépp sa jëmm rek ak sa kaaraangaam moo tax mu mu nekk fa kon ñu maslaa ak ñoom lañ ñuy digal mbaa fa ñuy orienté ñu déggoo ci ak ñoom te xam ne suñ njariñ rek lay doon waaye ñoom it ñu ñaan leen yombal ci luñ mën a maslaa ñu maslaa ji gis ngeen accident bi am tey fii ci Louga dafa fa faatu ci ay nit ëpp na ñaar fukk ak lu topp te loolu li koy waral bari na mën naa am ci oto bi la mën naa am ci ku koy dawal la mën naa am ci yoon wi la ak taw bi yu yëpp ñu bàyyi ko xel tey oto boobu bu fekkee dafa siy sars tey doon na gën a metti kon yooyu nga xam ne ñoom takk der yi ñooy na ci suñu wet ñu ko di ñu ko di ñu ci laaya biire nañ leen bàyyi xel ci loolu ànd ak ñoom ci loolu ndax suñu njariñ rek la kon monsieur le ñu ngi wëlbati di la sant ci turu njaboot gi ci turu Baye Ahmadou Makhtar di sant say kilifa ministre de l'intérieur ba ci premier ministre ndax màggal gi yépp seen màggal la ba ci président Macky Sall di ko sargal di ko sargal ci grandeur bi mu am ba jël li mu jël euh, muy lu diis waaye nit na mu toll lay jëfe ndax ñun maa ngi fàttaliku euh, maanaam conseil con mu tuddati euh, constitution bi mu ko yeesal dafa ñëw seex ak Cheikh Sidi Makhtar ba muy wax maa ngi toog ni ko dama fas yéene kenn dootu fi am lu ëpp ñaari mandat te dama koy vérifier ba nga xam ne kenn dootu ko mën a mun tuddati kon suñ dee xool loolu jamonoy yëngatu wax yi bari bëgg-bëgg yi bari moom mu am matug la mu waxoon mu sàmm ko loolu ñu ngi ko ci sargal te ji ko ñaan yàlla suñu borom mu may ko lu gën lu ak lu ëpp ndax kenn mun a nekk ci àddina lu nekk lu ex président teraanga mënut a wees loolu la ca def nag mooy wér-gu-yaram ak ak wér wér-gu-yaram ak gudd fan ba mën a continuer di jariñ Sénégal kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm euh, di wax ni màggal gaal ñoom incha allah le 6 la set setal bi le 7 la le premier la mardi le premier la incha allahu talaata benn fan ci weeru août lañ koy def kon monsieur euh, Mor Mor Mor Lo euh, bis baa noonu ci seen loxo yéen waa commune bi ak taalibe yëpp ñu leen ci woo euh, waa UGC wala nu mu tuddati am na lu bees lu Sonacel yéen itam fépp fu ñu mas a wootee ak màggal gis nañu kenn du leen fa jiitu kenn du leen ci man te yéen a fay jiitu donc yéen ñëpp ñu ngi leen sant leen gërëm di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm bi barakati rasulullah alayhi salaatu wasalaam te kenn bañ fee gaañu kenn bañ fee accidenté jàmm rek am yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal barke bi soxal si jërëjëf waaja tëj jotaay bi rek ginnaaw bu ñu féete la waat suñu nuyu ak suñu ziar si régional des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànn bi wax na ko léegi tey mun naa ne bés bi ñuy def nii ndaje yàlla def na sëñ bi mun naa ne fi la fanaan si bii kon foo naa ne tamit mun nañ ne tawfeex la dajal di ñaanal également sëñ Amadou Makhtar Mbacké xalifu Daaru Xudoos ak njaboot gi yëpp suñ borom sàmm leen te aar leen ah, lii nga xam ne nag moom lañ sumb léegi rek muy waajal bés bi te foo naa sëriñ Cheikh Thioro Mbacké na ci soxla bés bi ak dayo bi nga xam ne moom la am ci yoonu murit mais également ci diine l'islam foo naa duñ ci adduwaat wax nañ li nga xam ne moom la xalaat ne suñ ko defee ànd ko comité d'organisation bi suñ borom mën nañoo dimbale ba bos bi jàll si jàmm muy secteur yëpp yi nga xam ne war nañ ko ci mun a soxla ci wàllu wër gi yaram foog naa ne dañ ca at muy juróom-ñaari poste avancé ak ñeenti ambulance waaye également ñu xool rek nu ñuy renforcer en personnel mais également médicament la dispositif parce que naa ne loolu dina ci dina ci am sol ci wàllu jet muy désinfection des concessions loolu service d'hygiène naa dina ci lëkkaloo commune Touba Mosquée ainsi que saupoudrage foo naa ne wax nañ ko ci ndax jamono nawet lañ ne ak yow foo naa ne suñu saupoudre dëkk ba aussi dina dina ci baax pour quand même euh, lutter contre la prolifération des de moustiques la ca des rek mooy euh, ànd koog commune su fekkee am nay jafe-jafe ci produit ñu mun koo teebee xool lañ ci mën a mën a àddu ci wàllu assainissement également ONAS na ci dugal loxoom ci camion de billage également commune Touba Mosquée engagé wu na pour également def ay voyages yi nga xam ne mun nañ ko lim ci téeméer ak ak juróom fukk nawet aussi lañ ne et là ñu wax rek sapeur pompier ONAS surtout axe routier yi nga xam ne mooy jëm ci Daaru Xudoos ñu fexe ba évacuer ndox yi nga xam ne ñooy euh, tere dem dég dikk bi soo laajee nag ay jumtukaay ñu teel def expression des besoins on a mooy mooy li gën mais également commune Touba ak li jumtukaay mu jot amas néew ñu boole ko am nañ si yaakaar suñu borom mën nañ ci defal defal ndimbal wàllu ndox foo naa loolu aussi amul euh, du am yenn jafe-jafe yi ndax camion citerne yi toll na ci juróom-benn yi nga xam ne moom ngeen àddu euh, te naa li bi nekk Touba su ko matul tamit jege na ko kon yaakaar naa ne loolu dinañ ci euh, dinañ ko dina mën a jàppandi li ci des mooy la gestion muy le loolu également ngeen lëkkaloo seeg l'autorité administrative le Ndam su dee diggante bi am nay jafe-jafe la rëq rek ñu teel koo yëg xool nuñ koy mën a mën a jubante euh, wàllu courant foo naa ne li ngeen ci àddu muy miir hors délestage ñetti fan lu jiitu màggal bi ak ñetti fan après waaye toppatoo également l'éclairage public loolu Sénélec ak commune bu Touba Mosquée dinañ ci ànd liggéey ci ndax foog naa ne day dimbale également takk der yi ci wàllu kaaraange euh, groupe électrogène également pour éviter su dee pur am na mu mun a jël mun a jël le relais loolu également engagement la yoo xam ne Sénélec addu àdduna ji li ci des rek mooy wàllu kaaraange foog naa ne commissaire spécial de Touba. Euh, ñoom ak la gendarmerie rek les sapeurs pompiers dina jël matuwaay ba nit ñi mën a ñëw si jàmm jéem a màggal si jàmm dellu si jàmm waaye mu am ñaar rek yoo xam ne dañ ko waxoon léegi sasaat bu commissaire spécial bu Touba mooy li jiitu màggal gi ñu def ay opération de patrouille ci li wër daal Xudoos ak lépp loo xam ne xaw na ko xaw na ko jege la ca des mooy euh, contrôle yi ñu xaw ko yëwanal waaye tamit Euh, li nga xam ne tamit mënul ñàkk moom il faut que ñuy ñuy saytu waaye nag lépp loo xam ne nuñ ko dimbale te du yàq dara ci dem rek dikki bi foog naa ne nañ ko ci nañ ko ci def incha allah wàllu saytu ñam yi également muy commerce ak élevage surtout si njëg yi ñoom également dinañ indi seen ressources humaines ba incha allah marché bi ñu approvisionné ko correctement mais également produits nekk des produits de qualité leneen rek mooy fi ñuy jeexale c'est l'organisation matérielle dégg nañ lim bi dinañ ko jébbal suñuy kilifa muy ministère de l'intérieur ci appui logistique bi nga xam ne moom lañu ciy xaar li nga xam ne nag jàppandi na au niveau de la DMTA dinañ ko mobiliser teel koo indi incha allah rabbi mais yéen moom il faut ñu daggan ko ci kaw rek wax bés bi ngeen xalaat ne moom ngeen bëgg mu mu jàppandi déjà peut-être foog naa ne déjà suba nañ def tout ba lii nga xam ne jot nañ ko fee wax dañ ko tënk si ay kayit jébbal ko service yi nga xam ne ñoo nekk njaareem mais également ñi niveau central maintenant pour le bi foo naa ne xat na boo xam ne pour defaat ndaje day jafe waaye foo naa le préfet de Mbacké ak comité d'organisation bi am na si yoo xam ne par téléphone mun nañ ko di ko di ko suivre maanaam su dee secteur boo leen gis ne am na sooxe ci liggéey bi dangeen koy wax préfet Mbacké su préfet bu ndaam mu wax ko préfet Mbacké su boobaa ñun dinañ ko jot kilifa dañ ko jot duñ si mën a jubati jubati su fee nekk am na loo xam aussi tëruñu ah ñu am honnêteté si wax leen ne kat affaire yi mujjul mujjul mujjul lijjantiku loolu moom euh, mooy ni nga xam noonu lañu fas yéene ànd di ñaan suñu borom yóbbu si jàmm ndax foog naa defaat ndaje ci digg bi day xaw a jafe pour mën a def le suivi du Magal Daaru Xudoos mais n'empêche ce sera fait di ñaan rek suñu borom yóbbu ñu seeg jàmm incha allah ba lépp luñ si ñaan suñu borom defal ñu ko ci donc sur ce nous levons la séance jërë ngeen jëf jëf.